baax a baax a baax di leen euh, baalu ak tamit ci euh, feetu korité bi ñu génn di leen ci ndokkeel di ñaan suñu borom may ñu ñu teewe ko at yu bëree bëree bëri kenn bañ a manqué ku nekk nag li nga doon ñaan ci weeru koor gi weeru sell wi suñu borom defal ñu ko muy naataange réewum Sénégal doyen Mamadou Sy Albert doyen yow moom laa njëkk war a baalu ak maa ngi lay baalu ak doyen bu baax a baax a baax di la baalu ak aussi di baalu ak euh, waa kër gi yëpp ak ñi nga xam ne bàyyi nañu xew ci suñu émission bi di nuyu waale aussi euh, waa kër gi di nuyu suñu gan bi merci beaucoup. di nuyu suñu gan gi euh, mu di Cheikh Diop waaye doyen yow laa njëkk laaj. doyen jot nga suukaru koor dégg suukaru koor bi may dégg ci dëkk bi. non xaw ma xaw ma fu mu mën di jóge dama dégg rek ci dëkk bi ñuy on parle de suukaru koor par par là. ah d'accord à part euh, mes mes mes neveux et mes nièces. ah kon quoi loolu loolu am na solo. loolu am na solo. loolu am na solo waaw am de waaw waaw. kon macha allah kon ñu teewe ko at yu bëree bëree bëri. doyen di nuyu sunu gan euh, bi ñu am tey mu di Cheikh Diop. Cheikh Diop bu CNTS FC moom la ñuy dalal tey kon mu nekk secrétaire général bu CNTS FC. boo déggee CNTS nag mooy confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement mu di FC bi ci topp euh, monsieur Diop. ñu ngi lay ziar bu baax a baax yow yaa ngi door a ñëw suñu émission avant première donc ñu ngi la ciy dalal. jërëjëf jërëjëf maa ngi lay delloo ziar waaye di ziar askan wi yëpp ak seen euh, téléspectateurs yi euh, di ziar doyen Albert bi mu bokkal plateau bi mm-hmm. di la jërëjëfal aussi ci invitation bi. waaye it euh, di balu àq askan wi ak liggéeykat yi di it euh, euh, suma jigéen suma xarit soxna Maymuna li daloon ci kaw boobaak léegi maa ngi soog a fii ci télévision bi méttitu nañ ko ci yeneen anam waaye ñu ngi soog a teewlu fii di ko feddaliwaat suñu kóllëre suñu solidarité waaye di méttitu loolu amoon te dal ci kawam dal ci ñun ñëpp Euh, di leen sant encore une fois di leen gërëm bu baax a baax ci invitation bi. mu nekk kon euh, vendredi 12 avril 2024 vendredi 12 avril doyen thème bi ñu war a waxtaanee moo di la situation du dialogue social dans le contexte du nouveau régime loolu la ñu fas yéene waxtaanee man nag li ma gënoon a ñor parce que ci bëggoon ay leerlu bi ma ko soumettre suñu invité bi mu di président Cheikh Diop. Euh, moom moo nekkoon wàllum euh, li ñuy wax euh, pacte de stabilité boobu moom ñoroon na ma trop trop parce que dañuy pacte de stabilité sociale et d'émergence ñu ngi ko signé woon ci atum 2014 ak nguur gi fi nekkoon depuis boobu gis nañ ci wàllum centrale syndicale yi ab dal boobu ba léegi amul grève amul génn ñaxtu syndicat yu ndaw ndawaan yi daal ñu ngi koy def mais yéen centrale yi moom depuis boobu c'est l'accalmie Euh, mën nañ ñëwaat ci pacte boobu ñu xamoon lan moo ko wundoon ca jamono 2014 jërëjëf effectivement boo gisee ma dugal évaluation dialogue bi pacte bi dafa nekk ci biir ci biir évaluation bi euh, ndax euh, événement wu régime bu bees bi Diomaye Sonko dafa am lu mu fàttali mouvement syndical nga ma bëggoon nga may ma ma dellu ci tuuti ndax dafa am solo te histoire la boo seetloo histoire mouvement syndical africain génération yu jëkk yi première génération yi dafa am rôle bu ñu woon boobaak léegi ñu ngi soog a amaat ay syndicalistes yu nekk ci bopp réew surtout Sénégal première génération. syndicalistes yu nekk ci bopp ci bopp réew maa ngi ñëw. première génération syndicalistes yi dañu impliqué woon ci guerre de libération des peuples africains ba jiite seen réew mhm. presque syndicalistes yi yóbbu seen réew indépendance vers les années cinquante huit soixante yëpp lu ci ëpp ay syndicaliste la ñu woon ku mel ni Houphouët-Boigny dañuy fàttane moom moo nekkoon secrétaire mhm. général bu des planteurs. Mhm. ku mel ni Sékou Touré ku mel ni Kwame Nkrumah ak mhm. euh, euh, président bi nekkoon Haute-Volta ñoom ñëpp ay syndicaliste la ñu woon impliqué wu ci guerre de libération yi ba jiite mouvement yi ba nekk euh, président seen réew ñuy daw plus de soixante ans après syndicaliste jiite war réewu Sénégal loolu pour ñun symbole la ci jamono bi mu ko jiitee ñu indi ay argument yu tax ñu jiital leen maanaam sonn bi askan wi sonn sonn bi ndaw yi sonn syndicaliste jiite réew leeral ko parce que man xam naa fi ngay waxee parce que ki nekk président tey mosoon na jiite syndicat jiite woon na syndicat de impôts et domaines jiite woon na ko la ñuy wax. mais xam naa foofu nga bëgg a ñëw moo tax nga ni syndicaliste jiite réew. ñoom ñaar ñëpp syndicaliste yoon jiite ko créer syndicat bi jiite ko. dama bëgg rek wax rek ne jamono ji ñu ñëwee nga xam ne chômage bi dafa metti jamono ji ñu ñëwee ci ci boppu réewum Sénégal di wax intégration africaine ak li nga xam ne Afrique war na ko mën a taxawu ci autonomie économique ak yu demee noonu ma jàpp ne. am nañ yaakaar bu rëy bu juddu parce que boo seetloo continent africain am na am na lu bëri lu mën a jouer pour renverser tendance bi nga xam ne moo tax xale yi di di di di soobu ci géej gi parce que xale yi soobu ci géej gi am na lu tax te mën nañu fexe ba renverser tendance boobu ndax Afrique amul benn continent bu ko gën position ci contexte bi ñu nag la la prochaine croissance mondiale sera africaine. Mmh. plus d'un tiers des terres cultivables de l'humanité mi ngi ci biir Afrique plus de plus de la moitié des ressources euh, si ce n'est l'inverse plus de la moitié des terres ressources euh, cultivables sont en Afrique plus de la plus du tiers de ressources naturelles inexploitées sont en Afrique kon tey jii taxawaay bi ñu war a taxaw mooy fexe ba renverser tendance bi tax xale yi di dem di génn Afrique te toog ci Afrique te am nañ possibilité am nañ moyens yi parce que croissance prochaine croissance mondiale africaine lay doon bëggoon naa ko euh, souligner mu jur yaakaar bi ci des mooy li nga laaj pacte de stabilité xam nga importance dialogue sociale ci réew nit ñi dañ koy réere mbir parce que boo seetloo euh, dialogue sociale bu ñu jëlee exemple au conseil du dialogue social bi nga xam ne première conférence sociale 94 boobu ngay wax ci lañ ko créé woon assorti d'un pacte ak benn structure muy au conseil du dialogue social. 80 94. ah pardon 2014 2014 maa ngi juum 2014 donc structure boobu. nga xam ne day accompagner dialogue social day fexe ba jàppale euh, euh, acteurs sociaux yi pour jiixi jaaxa bañ a am pour grève bañ a am boo xoolee budget moom 500 millions donc la xam nga ñu ngi wax naan. ay institution budgétivore ak yooyu but eh, au conseil du dialogue social budget am 500 millions la te gis nga au conseil du dialogue social role bi muy joué pour empêcher grève benn fan wala ñaari fan ëpp na 500 millions. au conseil du dialogue du dialogue mais au conseil du dialogue mënuñu ko woon dugal rek conseil économique social lépp ñu waxtaanee ko fa benn yoon. déedéet eh, am na ñuy xalaat loolu waaye conseil économique et social rôle bi mu am beneen la. parce que au conseil du dialogue social texte yi nga xam ne moo régir euh, monde du travail am na ci yu bëri dafa obsolète day accompagner pour ñu changer leen fu mel ni convention bu bu industrie alimentaire 1958 la woon convention des mines 1958 la woon damay joxe ay exemple ñoom dañu xar seen tànk tubéy pour ñu renouveler leen adapter leen ci contexte bi loolu conseil économique et social mënul dox loolu conseil économique et social nag mun na am sec gis secteur bu bëri coow mu woo acteurs yi déglu leen xelal nguur gi pour coow loolu fay ci rapport am annuel loolu mun na ko waaye wàcc ci terrain bi dajale ci ut ay experts ñu waxtaane lu nga xam ne day tax ba grève du am loolu euh, au conseil du dialogue tripartite la presque li am ko au conseil euh, moo fa am parce que foofu nguur gi mu nga fa am na fa ay acteurs euh, ay représentants syndicats yi am nañ fa représentant patronat bi am nañ fa représentant donc structure la bu nga xam ne man jàpp naa ne c'est la structure la mieux indiquée pour impliquer wu ci dialogue social ba pare dafay taxawal ay kuréel ñu koy wax ay ay ay comité sectoriel de dialogue social taxawal na benn pétrole par exemple ñu ngi koy waaj a taxawal mais sauvé nañ fa situation bu doy waar parce que pétrole dañu jékki-jékki patronat bi jóg ne dañuy installer ay caméra ci biir euh, cabinu euh, transport hydrocarbure loolu xaw naa indi grève gis nga secteur boobu bu grève woon ñaari fan rek li réew mi di ñàkk kenn xamul nu mu toll bon syndicat bi impliqué wu. mais camera ci bërëb bu. transport justement justement de carburant <laughs> pourquoi liggéeykat bi war ko mën a bañ. déet xam nga aussi liggéeykat dafa am ay droits inviolables. xoolal nga jël caméra placé ko ci sa cabine te oto mu fixé la pendant tout les voyage loolu am na lu ci yoon maye ak lu mu ci xañe waxtaan nañ bu trouver solution waxtaan nañ ba trouver solution dama la bëgg woon rek ne importance su yenn structures yi ensuite ak syndicat pétrole aussi volonté bi mu am pour régler problème yi en avance waxtaan nañ ba trouver solution ba signe ay accords yu nga xam ne ku ci nekk sauvegarder nga say say say intérêt ak say droit donc dialogue social ci réew jàpp naa ne lu ama am solo la lu ñu war a évaluer la lu ñu war a rendre performant lay doon dialogue social Sénégal nag effectivement comme ni nga ko waxee woon euh, dafa am conférence sociale yu ñu fi def ñetti conférence sociale li tax conférence sociale yooyu am solo bu jëkk ba ci lañ defoon pacte de stabilité sociale et d'émergence économique taxawal ci au conseil du dialogue social pour mu encadrer pacte bi mais également pour mu jàppale accompagner dialogue social donc bi ñu demee ba signer pacte bi pacte bi jeex na évaluation bi wax dëgg des na war nañ ko gën a évaluer xool lan moo ci manqué ak lan moo ci des waaye pacte bi njëriñam moo doon balay jàppante ndomboy baat di ab poñente maanaam bala muy am nañu waxtaane li nga xam ne moom lañ war a waxtaane balay jàppante di am pacte bi defoon na loolu pacte bi waxoon na ne dialogue social bi ni mu tëdd nii. mais pacte bi durée bi c'était combien trois ans. trois ans jeex na. depuis lors koy renouveler. jeex na d'une manière ah nee nañ d'une manière tacite. déedéet renouvellement bi <laughs> renouvellement depuis trois depuis 2014. la woon boobu. waaw kenn waxutul waxu pacte parce que nee nañ c'est toujours en cours alors que ci suuf. déedéet dañ ko doon renouveler. déedéet dañ ko waroon normalement dañ ko waroon évaluer. bala ñoo renouveler. bala ñuy renouveler. ça n'a pas été fait. ça mais décision yi jëloon quand yu bëri ngi continuer décision yi mu jëloon bokk na ci au conseil ñu ngi liggéey décision yi mu jëloon bokk na ci ñu fexe ba dialogue social bi ne mu tëdde woon ba ñuy signé pacte bi maanaam li may wax dialogue social de restitution parce que dafa demoon ba da ngay signé accord ba pare. dawaat topp ci application bi xam nga loolu xam loolu dialogue social boobu benn gënu ko rétrograde ci njàng mi njàngale mi ak ci santé bi loolu dañoo waxoon ci pacte bi ne na jeex maanaam jeexagul nag totalement loolu xam nga lu ñu waroon évaluer parce que boo xoolee ci biir euh, njàng meeg njàngale mi am na ay fonctionnaires yu nga xam ne li dal seen kaw kenn xamul lan la mooy li ñuy wax décisionnaires yi bu ñu demee retraite musiba am na ci seen njaboot ak ci ñoom dañoo gis aussi ne dañuy contractualiser ay emploi de qualité ci biir fonction publique rawatina ci biir santé ay emploi de qualité au lieu ñu def leen ay fonctionnaires directement ñu bénéficier wu ci avantage yi fonctionnaires yi am yëpp dañ leen di def ay contractuel gis nañu ne également ci biir secteur public coow li bëri na fa te loolu daawul am parce que bu njëkk ba violation droit ñu ko daan gën a seetlu ci secteur privé mais léegi boo xoolee li xew ci collectivité territoriale yi violation magu ko ëpp ko boo xoolee li xew ci secteur primaire ak ci biir sante bi aussi am na ci eh, ñu def ay augmentation jël ay décision nguur gi wax ko ñii am ñii amuñu disparité boobu kenn xamul nu mel rax ca dolli décisionnaire yi comme ni ma ko waxee sànq loolu yëpp ay question la yu nga xam ne war nañ ko évaluer pour ñu avancer parce que c'est récurrent ñu xool aussi ne collectivité territoriale wax naa ko sànq mais poste bi la fa xew aussi Sonacos léegi secteur société yi nga xam ne secteur public moo leen ëpp société yooyu ñoo ëpp jafe-jafe. kon war nañ waxtaanee filière agriculture ak yeneen ak yeneen ak xew ci poste bi. d'accord mais man euh, doyen euh, dafa mel ni Cheikh Diop. SG euh, ba léegi tontuwul sama question parce que man li ma ko doon laaj mooy pacte de stabilité boobu. waaw ah. trois ans la waroon durer durer na daanaka disons neuf ans presque mais évaluation amul. léegi lan moo ko taxoon a jóg c'était juste pour calmer les centrales ba nga xamante ni grève yu mag dootu fi amati te apparemment le pouvoir sortant l'a très bien réussi après mu ñëwaat ci yow doyen waaw euh, mën nañu wax ne que euh, bon poser na problématique de base bi mooy que euh, syndicalisme dafa yàgg ci Afrique oui soo xoolee histoire Afrique mhm. syndicat moo gën a moo njëkk nekk école école de de de formation de défense des intérêts des travailleurs pratiquement toutes les luttes contre le système colonial ont été menées par les syndicalistes les partis politiques sont venus progressivement même lu may doole partis politiques yi syndicat bi la ndaxte ba 80 pour nga nekk parti fort il faut nga am syndicat bu fort toutes les luttes sous le régime de Diouf wala de Senghor il y avait cette complicité entre les partis et les syndicats loolu tax les syndicalistes c'était les premiers dirigeants les premiers leaders c'est eux aussi ñoom ñoo jël la tête des partis politiques c'est rare de voir un parti politique fort sans des syndicalistes bon donc tradition syndicale dafa yàgg ci Afrique dafa yàgg ci Sénégal ñoom loolu la ñu hérité mais maintenant période bi ñu nekk ni y a euh, une séparation beaucoup plus nette entre le syndicat et le parti politique parce que les partis sont entrés en crise les partis boo xoolee PS PDS la gauche éparpillement bu fa nekk syndicats yi ils se sont renforcés ñu gis la possibilité des grandes coalitions syndicales donc ci période boobu la ñu nekk bon je crois que euh, capacité de lutte des syndicats moo jur coalition moo jur pacte bi mu wax. parce que soo xoolee Diouf nga xool Abdoulaye Wade nga xool Macky Sall difficulté bi ñu amoon bu gën a sës mooy avec les syndicats. que ce soit éducation que ce soit santé que ce soit industrie que ce soit mille électricité électricité <laughs> tous les problèmes venaient des questions syndicales. Donc Macky Sall, quand il est venu, il a tiré la leçon. C'est-à-dire que l'instabilité du pays provenait en partie du milieu syndical. Donc il faut trouver un pacte. Ben, pacte de stabilité sociale, l'objectif c'était de stabiliser le milieu syndical. Bon, mais c'était aussi de trouver des mécanismes. Comment gérer les conflits euh, syndicaux. en 2014 c'est pas par hasard parce que Macky Sall est venu au pouvoir avec le soutien des partis et des syndicats. Ouais. Bon, ils ont vu aussi Abdoulaye Wade avait le même soutien mais le soutien s'est détérioré. Il y a eu beaucoup de grèves sous Abdou sous Abdoulaye Wade, beaucoup de grèves aussi dans le la santé et l'éducation sous euh, Macky Sall. Donc Macky a eu l'intelligence de trouver un consensus avec les syndicats. c'est-à-dire comment trouver un pacte de stabilité sociale waaw ah, loolu tax dialogue social c'est, c'est un outil c'est de gestion des conflits donc comme ni ma ko waxee y les trois parties il y l'État il y le privé il y a les et loolu c'est une avancée quand même progressive dans la gestion des conflits syndicaux loolu moo tax euh, pourquoi euh, ils ont réussi c'est parce que au moins par le dialogue social Euh, da ngay anticiper sur les conflits wala conflit bu amee di nga am capacité de négocier mmh. loolu moo tax sous Macky Sall il y a eu plus de stabilité sociale et syndicale maintenant le problème qu'on a mooy li mu wax c'est que on n'a pas évalué mmh. on passe de Macky Sall à, un nouveau régime mais évaluation bi pourquoi ça pose problème il a dit euh, par exemple un secteur assez essentiel c'est l'éducation les décisionnaires. Mais ça dure depuis des années et des années. Il n'y a pas de solution. Tu prends la santé. Ben, les, les, les, contrats, c'est le même problème depuis 5 ans, même presque 10 ans. Donc, éducation et santé. Euh, sur euh, bon, le, le, cas aussi de la presse, hein, mm -hmm. on se rend compte que le gouvernement n'a pas respecté beaucoup de ses engagements. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut évaluer. Pourquoi le gouvernement n'a pas respecté ses engagements mmh. Quelles sont les conséquences de ce manque de respect et qu'est-ce qui risque d'arriver Donc il y a un problème d'évaluer euh, le, manque de respect des engagements de l'État. Loolu benn pàcc la bon beneen pàcc bi aussi mooy que bah, il y a les nouveaux secteurs le pétrole le gaz comme il l'a dit l'Afrique de demain mais c'est les ressources on sait qu'on va être un pôle attractif mais les bailleurs de fonds ou bien les investisseurs en général ils ne respectent pas le droit du travail qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper que secteur pétrole euh, euh, le gaz le, le, le, les ressources halieutiques qu'on puisse protéger le travailleur sénégalais je pense que loolu aussi ça mérite euh, une, une réflexion de, au niveau du, du dialogue social bon maintenant euh, c'est vrai que beneen problème bi nga xam ne nag euh, sës na aussi c'est la la formation ça on n'a pas une euh, des on n'a pas des travailleurs qualifiés ou suffisamment qualifiés loolu mooy suñu faiblesse que a de de de de de, de euh, des travailleurs bon qui sont dans dans l'administration publique santé éducation et cetera mais boo xoolee les secteurs par exemple du pétrole du gaz de transformation de l'agriculture, transformation de l'industrie. On n'a pas de travail qualifié. Donc je pense que loolu aussi war na nekk euh, un chantier pour euh, pour euh, pour les pour les travailleurs. Bon maintenant dernière observation c'est par rapport à à à l'avenir c'est bien que mu am pacte social c'est bien que mu am dialogue social. beneen pacte pacte bu bees. non c'est quel est le, le profil du syndicat de demain. oui waaw loolu nañ ci ñëwaat est-ce qu'on ne doit pas aller. Mhm. plus loin que le tripartite. c'est oui. la la cogestion. loolu dinañ ci ñëwaat doyen le syndicat de de demain. demain je pense que ça bon, aussi mhm. c'est important. que bon, que, que, que les gens travaillent à ça. foog ñu ñëwaat ci mais euh, pourquoi may jàpp ni pacte de stabilité bi euh, taxu ko am réussite trop. bu dee am na réussite ci côté gouvernement parce que li mu bëggoon daanaka euh, am na ko maanaam fexe ba centrale yi mu mën leen a dalal quelque part mais gis nañ ni euh, pacte boobu noonu lu tax amu ko mooy centrale yooyu dañuy gën a perdre crédibilité ci côté travailleurs yi parce que travailleurs yi léegi bu ñu wootee seen centrale syndicale pour mu wallu leen gis nañ ni centrale bi moom toujours mu ngi leen naan calme leen dal leen dal leen alors que premier mai bu jotee chaque premier mai revendication yu daaw ak yu daaw jéegi moom la ñuy indiwaat moom la ñuy liiraat on sent que cahier de doléance yi moom benn bi rek la ñuy ubbi di ko liiraat amul progression en fait loo koy évaluer noo koy évaluer loolu noonu appréciation bi nga def wute na ak bi ma bi ma bi ma gis hmm. euh, organisation syndicale ay pàcc la dafa am collège de délégués ci entreprise bi am organisation syndicale professionnelle am confédération bu regrouper organisation syndicale professionnelle yu bëri mm-hmm. doyen def na développement bu am solo ci relation yooyu mm-hmm. euh, organisation yi euh, am naa yaakaar ne bu ñu tëddee noonu ñu waxtaan ba ñëw ci pacte bi pacte bi fiñ ci jaar ba egsi ci junj na ko parce que bu jëkk ba dafa amoon lëkkaloo parti politique ak syndicat bu nga xam ne dafa demoon ba gàllankoor. comme jamono CNTS ak comme voilà comme euh, participation responsable. may fàttali ne mouvement syndical ak politique am na lu leen boole. waaye évoluer nañ. léegi tey ñun ñii dañ jàpp ne politique waratul ëmb syndicat. Mhm. contraire bi sax moo war a parce que boo seetloo ca cosaan relation. capital travail moo jur idéologie politique. oui. Mm-hmm. parce que idéologie politique yi nga xam ne dañuy jàppale capital. comme le ci la ñuy juddoo tudd idéologie capitaliste. Mm-hmm. di jàppale capital di wut nguur pour renforcer capital. Oui. idéologie politique yi nga xam ne dañuy jàppale travail tudd idéologie socialiste en référence à, à notre objectif de progrès social. communisme socialisme voilà ñaari idéologie confrontation capital moo leen jur. ñu lëkkaloo lool nag. ku nekk di jàppale sa waay ñuy dem ba adduna di dox ñu gis ne organisation syndicale ak évolution adduna bi di mu demee parce que boo seetloo évolution mouvement revendicatif dafa jur yeneen xeetu revendicat dinañ ci ñëw porteur de revendicateur yu bees dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw. très bien donc moo tax ba mm-hmm. léegi suñu diggante ak politique du ci tànn bi maanaam tànn kan mooy kan mooy jiite réew mi mais ki jiite réew mi bu ko tànnee ba pare politique publique yi muy élaborer. ça nous intéresse au plus haut niveau politique publique yooyu su demee dans le sens de la demande ñu accompagner su si c'est le contraire ñu combattre jàkkaarloo li ngay wax ci première mai ak cahier de doléances yi loolu dinaa ci dellu si gis nga il faut que nit ñi xam ne cahier yi ñuy déposer le premier tuddul cahier de revendication cahier de doléance la tudd am na différence gis nga revendication organisation syndicale bu responsable du xaar première mai ci saa si la koy régler bu amee day takk ndigam jàkkaarloog revendication cahier de doléance dafa recouvrer beneen importance bu nit ñi di perdre de vue gis nga cahier de doléance boo seetloo ñun suñ cahier 2000 par exemple dañ ci defoon dañu revendiquer woon la mobilité urbaine ndax inondation yu metti yi amoon mobilité urbaine du dugg ci poosu liggéeykat xam loo léegi un gouvernement responsable suñ ko déposé les cahiers de doléance dafay am sens caractère demande sociale globale buy élaborer public politique publique yi dafa war ubbi cahier de doléances di xool parce que duñu ay revendication c'est une c'est une globalité de la demande sociale hmm. comprendre nga hmm. aspect boobu dañ koy fàtte hmm, boo seetloo mobilité urbaine ak rurale bañ koy revendiquer boobu pont yi ak autoroute yi amagul woon est-ce que les différents gouvernements ne se sont pas inspirés sur ça pour créer ay pont ak ay kii parce que demoon na ba gàllankoor économie bi mais du revendication loolu c'est une demande sociale que les syndicats ont pris en charge donc cahier de am na aspect boobu moo tax nit ñi léeg-léeg ñu naan waaw cahier de doléance yi toujours muy dellu si te dara du ci faju dinañ leen évaluer parce que ministère yi mu concerné yëpp bu ñu def évaluation dinañu wax doléance yi ñu posé lan lañ ci def dëgg la nag ñu ci bëri defuñu ci dara loolu dëgg la hmm. mais gouvernement bu nga xam ne da nga bëgg soo élaborer say politiques publiques mouvement revendicatif accompagné la di nga yër loolu. li xewoon Tunisie laay jël exemple. li ñuy wax printemps arabe révolution ba fa amoon ñan ñoo ko indi suñu mhm. camarade UGTT tey parce que politique publique yi élaboré wul dafa dem ba askan wi attanut ko syndicat yi soobu jàkkaarloo mai 68 bi mu juju léegi ba Senghor tiré ci leçon ba créer participation responsable ci loolu la juddoo donc syndicat yi fa ñu nekkoon ñu nga fa. non fa ñun ñeneen syndicat yi ñun kay suñu Sénégal la ñu wax déedéet euh, xam nga li nga wax ni yaa ngi wax xam arab yaa ngi wax jamono Senghor xam nga mais chez nous dafa évoluer parce que dañu jàpp ni les les les patrons des centrales vraiment ils se sont embourgeoisés les centrales n'ont pas de patron ils ont des des militants et des responsables les leaders donc des centrales très bien les leaders se sont embourgeoisés maanaam dañoo kere ba fi ñu toll nii xalaat ni Cheikh Diop dina mës a génnaat di ñaxtu ci tali bi loolu moom vraiment rêve rêve bu dul mës a am la. am na ñu lay déglu parce que non non am na ñu lay déglu. parce que boo waxee Cheikh Diop du génn ci tali bi waa poste waa poste duñ d'accord parce que marche bu ñu def maa ko jiite ñu may dégg boo waxee Cheikh Diop du génn ci tali bi waa collectivité territoriale duñ d'accord ak yow parce que marche bu ñu def ak AG bu ñu def maa ngi ko jiite ak ñeneen ak ñeneen kon loolu boo ko waxee ñu ngi lay déglu ñoom it ban it ñu may dégg li am mooy. mouvement syndical dafa évoluer structuration bi ak composition bi dafa évoluer boo ci bokkee nag da nga war di analyser di dégager ay piste de solution dañoo dem ba mouvement revendicatif dafa éclaté am ay dafa am ay association de consommériste waaw yooyu waa déglu may may ma tuuti may ma tuuti mu leer dama bëgg mu leer dafa am ay association de consommériste yu jël tuuti ci suñu mission revendiquer le panier de la ménagère kooku ci mission syndicale la ñoom jël nañ ko di ko revendiquer dama lay expliquer évolution la mouvement revendicatif moo évolution def ay paj mm-hmm. am ay ay ay activiste mm-hmm. am ay ay ay ay ay lanceur d'alerte activistes yi taxawal foofu sax parce que activité euh, activistes yi moom ils ont le en poupe ku am léegi la ñaxtu da ngay dem xooli ñoom Guy Marius Sagna ay frappe France dégage et cetera ak yeneen ak yeneen pour ñu porter la sa revendication def conférence de presse dem place de la nation et cetera et cetera. et le syndicat dans tout ça. soo ma mayul ma développé dinañu réeroo. waaw léegi activistes yi ni mu ñëwee nangu pouvoiru. syndicat nanguwuñu ko nanguwuñu ko. kon nangu woon ni le syndicalisme est en déclin au Sénégal. mais soo ma mayul ma expliqué. vas ñu egg foofu boo ma mayul tuuti rek. xam nga xam nga la mondialisation. dafa jur lu bëri dafa am conséquence ci parti politique yi aucun parti politique maintenant. ne peut remporter des élections c'est des coalitions may ma rek ba may bi lay aman dinañ dinañ déggoo donc mondialisation la quatrième révolution industrielle dafa impacter le mouvement revendicatif la quatrième révolution industrielle bu njëkk ba pour construire un building il fallait des centaines de travailleurs deux cents ou trois cents léegi il faut cinq travailleurs pour construire un building de vingt étages Ça, c'est la, c'est, c'est, la, la, quatrième révolution industrielle. Aujourd'hui, l'unité de lieu du mouvement syndical est en train d'être, d'être, rompue à cause du télétravail. Mmh. La production est en train d'être virtualisée. Les supermarchés qui grouillaient de monde d'emplois. Mm-hmm. des centaines d'emplois. Aujourd'hui, il n'y a que trois qui sont dans les magasins et les tchak-tchak livres. Tu commandes en ligne. le monde a évolué. Laisse-moi vous expliquer. Donc le mouvement syndical, tout comme le mouvement revendicatif, est en train de traverser une situation extrêmement difficile et il faut qu'il s'adapte. Mmh, mmh. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors léegi comme li ma la waxoon pàcc yooyu consommateurs yi jël nañ ci droit de l'hommiste yi jël nañ ci yenn ONG yi jël nañ ci li nga xam ne mouvement syndical moo ko doon revendiquer donc il faut construire des ponts avec ces gens-là Euh, sama rakk ji Marius Sagna boobu ngay wax daje nañ plusieurs fois ñëw na sama centrale dem naa seeti ko pour ñu xool naka la ñuy de des ponts pour que travailleurs yi ñëw ci ñoom bu defee li mu war a def parce que du lépp la bën moom du dem tribunal moom du du négocier du signer protocole d'accord donc il faudrait que le mouvement se restructure beneen bi gën a ëpp solo ba ngay wax ne euh, syndicats yi dañuy xeex ñu leen di seetaat mooy mouvement mouvement syndical dafa ñaari entité la ñaari entité ñoo saytu mouvement syndical le mouvement ouvrier et l'élite intellectuelle engagée léegi impact quatrième révolution bi dafa tax ba l'élite intellectuelle engagé et le mouvement ouvrier sont en train de se désunir hmm. boo xoolee syndicat yu bëri syndicat de l'élite nekkatuñ ci centrale syndicale yi élite bi waaw fan lañu nag euh, euh, dañoo dañoo dem autonome dañuy demal seen bopp syndicat jàngalekat borom xam-xam yu bëri bokkatuñ ci central or central moo yor mouvement ouvrier ñaar yooyu nag élite intellectuelle ak mouvement ouvrier ñooy mën a ànd pour que mouvement syndical tekki lim tekki nekk li lim nekkoon parce que la révolution française des années 1700 est partie de deux faits majeurs et ça c'est pas moi qui le dis ce sont les instituts françaises qui le disent mm. nee nañu les luttes ouvrières parties de de de de Paris et les luttes politiques portées par l'élite intellectuelle engagée parti de Grenoble ñoom ñoo convergé ba arrivé à la à la révolution française pour vous dire que ñaar ñooñu bu ñu àndee mhm. ils peuvent soulever des montagnes tey jii révolution quatrième révolution industrielle daf leen séparé mhm. le travail bi ñu war a entamé te cnts commencé na ko mooy dem seeti l'élite intellectuelle engagée fexe ba ñu waxtaan ba retrouver notre unité commencé nañ ci inspecteur euh, de l'enseignement yi waxtaan na ñoom dem nañ plusieurs séances de travail ñu xam ne li ñu wax dëgg la ñu fekk sañu ci dem nañ ci SAEMS e par mm-hmm. exemple peut-être je réserve la primeur waxtaan nañoo ñoom ba ñu ngi ànd dem nañ ci inspecteur euh, des impôts et domaines euh, président Diomaye bi mu yoree syndicat bi li may wax yàgg na di du léegi dem nañ rencontré ren moom ak camarade Pouy ak ak ak Birame Souley camarade su Souley Diop camarade dañu war à l'époque léegi ñun ñooy suñuy autorité daje nañ ci seen siège ñu waxtaan ci loolu ci nécessité bi ñu war a am parce que l'élite intellectuelle accompagnement am ak mouvement ouvrier dafa am solo te dafa mun a soulever ay montagnes yu bëree bëree bëri bi mhm. donc seeti nañ leen dem nañ leen seeti nañ médecins yi syndicat médecins yi ak ñeneen ak ñeneen ba fi nekk nii ñu ngi ci liggéey boobu pour réunifier les deux entités essentielles du mouvement syndical qui ont posé les fondements idéologiques du mouvement et qui orientent les luttes tey jii les luttes sont dispersées bu ñu demee ba nga signé accord kenn respecté wu ko xam nga mouvement syndical loolu rek parce que le protocole d'accord est censé résoudre définitivement le conflit du travail aujourd'hui c'est le protocole d'accord qui en est la cause est-ce que piégé wuñu leen foofu ce pacte de stabilité est-ce que piégé wuñu leen yéen pacte de stabilité bi dafa jiitu accord signé yi non respecté accord signé yi non respecté ñoo jiitu pacte bi liggéey nañ ci pour ñu régler am ñu ngi def ay avancées. mais dafa des ñoo jiitu pacte bi ñoo jiitu pacte bi. ci biir pacte bi bokk na ci état réglé accord yi mu signé te respecté wu ko bokk na ci pacte bi. ci clause yi la bokk tax maanaam piégé nañ leen parce que accord yi moo jiitu pacte bi. oui léegi ñu signé loo leen pacte ba pare taxul ñu respecté accord yi. mais déggoo li ma la wax mi ngi avancé ñu ngi koy respecté dafa des mais ñu ngi dem gis nga pacte bi soo buggee ñu xuus ci dafa amoon ay pacc dañoo waxoon ne ñetti at yu nekk wala ñeenti at yu nekk nañ def conférence sociale conférence sociale day am thème thème bi dañ koy poser pour résoudre ay problème essentiels lu deme ni eh, su pension de retraite bi mm. dernière conférence on a fait trois conférences sociales boobu moo ko réglé l'extension de la protection sociale boobu moo ko réglé yokk nañ pension yi xam lo loolu conférence sociale yi ñuy def ñoo ko indi ak yeneen ak yeneen pacte bi yokk gi moom bu ñu ko seetloo rek élection yi jub si ah yokk gi bu ñu ko seetloo c'est parce que élection la ñu jub syndicat du fonctionner noonu en tout cas ñun duñu fonctionner noonu ñun dañ jàpp ne nécessité bu amee nañ ci taxaw takk suñ dikk léegi nag euh, mouvement syndical sax dëgg-dëgg cosaanam buñ duggee ci campagne électorale day def day def day bàyyi day di teg yëpp ci suuf parce que lu mu def ñu jàpp ne dafa ànd ak kii wala kële kon ñun loolu engagé wu ñu li ñu engagé mooy bu revendication amee ñu saytu ko. ok d'accord doyen Mamadou Sy Albert. Mm-hmm. doyen ma bàyyi la euh, invité bi bu fekkee am nga laaj yoo ko war a laaj mais lenn du laa lay laaj yow laataa nga koy poser question mooy. Euh, fi ñu toll nii daal du ma dégloo euh, Cheikh Diop li mu wax mooy s'unir ou périr parce que jamono ngi dox yeneen a ngi ñëw travailleurs yi ñu ngi gën a dispersé wu ñoom fi ñu toll nii ñu leen di woowaat pour ñu booloo sinon c'en est fini c'est un déclin la nu ñu koy wax ti mourir de leur belle mort le syndicalisme waaw lu lu moo expliquer mooy dinu que euh, am na solo ah am na solo développement bi mu bi mu def c'est-à-dire que euh, le monde du travail dafa nekk ci période de, de mutation c'est c'est une mutation c'est le travail qui est en mutation mmh. par exemple <coughs> le lieu du travail comme ni mu ko waxee ce n'est plus l'entreprise qu'on a connue avant tu peux être chez toi ou dans un restaurant travailler pour une entreprise qui est en France Donc le lieu du travail, il change. Bah, L'organisation du travail change. Les types de revendication changent. Donc ça veut dire que le travail, est en mutation parce qu'il y a le capital, c'est-à-dire celui qui a de l'argent ou celui qui a les moyens de l'État, c'est lui qui déplace le travail en fonction de ses objectifs. loolu mutation bu rëy la ci ci dans le monde du travail mais beneen beneen mutation bi c'est que les, les, les, syndicats sont dans une sorte de crise. Il y a la CNTS, FC, il y a la CNTS traditionnelle, il y a l'UNSAS, il y a beaucoup de pôles euh, mmh. syndicaux. Cette dispersion-là affaiblit le mouvement syndical. Donc ça, il y a un problème. Tu as même dit qu'il y a euh, un embourgeoisement. Il y a des gens qui sont maintenant des syndicalistes, euh, mais qui sont des complices de l'État. Donc là, c'est un blocage pour les syndicats. Quand les responsables syndicaux sont plus en, euh, euh, à, à, sont plus en accord avec le patronat qu'avec les travailleurs, là, tu as un problème. Bon, def naa problème bu gën a rëy bu mu wone mooy que le le le l'entreprise euh, elle est elle est en mutation. Mais cette mutation se double avec une rupture avec ce qu'il a appelé les élites. Mmh. Ça, les administratifs, c'est ceux qui sont dans la santé, dans l'éducation, dans les autres secteurs, là, les intellectuels, là. Mhm. Ils ont leur propre euh, démarche syndicale. Mhm. Et li mu wax le capital ñoom la gën a capté. Mhm. C'est-à-dire que est intégrée dans le fonctionnement du capital. Ce qui fait que les, les intellectuels, ils sont plus dans le, le, dans, dans le, dans, dans le système. alors que les ouvriers sont en dehors du système. Mmh. Mais comment maintenant trouver euh, le lien entre les travailleurs euh, dans les entreprises traditionnelles et les élites? Ça, c'est une coupure très nette qui qui est là. C'est une difficulté du monde syndical euh, que bon par exemple les enseignants que ce soit euh, du supérieur du moyen secondaire ils se mêlent pas des vrais problèmes des ouvriers ils se mêlent pas des vrais problèmes de l'agriculture ils mmh. se mêlent pas des vrais problèmes des population loolu tax ce qu'il a expliqué c'est pertinent les alerteurs là Guy Marius Guy Marius il reçoit des travailleurs mhm. mais parce que ils n'ont pas où se lamenter parce qu'ils n'ont pas euh, un porte-parole mhm. donc c'est un malaise je pense que wax na aussi que les syndicats doivent travailler en intelligence avec les alerteurs avec les Guy Marius l'idée c'est comment faire pour que le mouvement syndical soit réunifié. ah oui ah oui ah oui. c'est ça l'enjeu pour euh, pour les mutations yu ñu yu ñu wax. Mhm. Euh, euh, il faut dire aussi que que l'État ne facilite pas les choses. Mhm. L'État aussi joue un double jeu c'est-à-dire que l'État est d'accord pour un syndicat fort mais l'État ne joue pas le jeu du respect. des engagements, ne joue pas le jeu du respect des contrats de travail, les conventions. Par exemple, le, prends l'exemple des multinationales. La, la pêche. Ah, la pêche, elle est là. Hein. C'est un secteur, euh, c'est euh, l'État fait des contrats, donne ça à des multinationales. L'État ne gère pas les travailleurs euh, qui sont dans la pêche traditionnelle, par Ils exemple. Ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas impliqués. À la limite même, euh, l'État est complice des multinationales contre mmh. la pêche artisanale. Mmh. bon soo jëlee le secteur pétrole et gaz aussi bah c'est la même chose ça on signe des contrats au niveau au nom de l'État pour avoir euh, bon des de, financements mais on ne gère pas les travailleurs donc ce qui fait que pour euh, moi euh, bon voilà tous les problèmes qu'il y a au niveau du monde euh, du monde syndical Maintenant, la, la question, peut-être que cher à... à... Ou peut-être l'égoïsme qui est noté aussi du côté des travailleurs. Parce que, vous guissez, par exemple, Ben Boîte, on nomme un nouveau DG, nous fait un syndicat fort, il fait tout pour casser le syndicat, en quoi faisant créer beneen syndicat bu juddu ci flanc syndicat bi fi nekkoon je la RTS. le DG a tout fait pour créer ñëpp xam nañ ni presse benn syndicat moo fi am muy SYNPICS def na tout ba créer beneen syndicat bu juddu biir RTS ñoom lay négocier ñoom lay signer ñeneen ñi ku yëngu soit yaa ngi frigo soit ñu ñu ñu ñu affecté la soit ñu fexe ba dagg sa salaire te kenn mënu ci dara tant mu ngi fi mu nekk jaay doole boo xam doyen vous pouvez poursuivre non c'est c'est ça aussi le état Sénégal c'est dans ces traditions oh, comme ni ma euh, Cheikh waxee sànq c'est-à-dire la participation responsable lu ko indi mooy loolu parti socialiste jël nguur ne pour man ma nguur il faut ma am syndicat bi may jàppale. PDS. Euh, jox PDS on euh, sent que développer la politique des quotas tu as des syndicalistes qui sont députés qui sont PCA qui sont qui sont impliqués dans la gestion de l'État mhm. mais processus boobu moo continuer ba léegi. c'est c'est Wade casser CNTS indi yeneen CNTS FC yeneen syndicat dans l'enseignement mmh. dans le supérieur. Mhm. on a éclaté. donc ouais. l'État ne joue pas le rôle. le politique chaque fois il euh, manœuvre. mais c'est particulièrement c'est particulièrement vrai au Sénégal. c'est-à-dire que nos hommes politiques n'acceptent pas un mouvement syndical fort. Mais vous êtes Mais c'est oui, non, soir. bon, c'est c'est normal. Mm -hmm. Maintenant, c'est les syndicats ñoom ñoo war a jël euh, responsabilité. Je, pense que li mu développé nii léegi tey jii bah c'est un discours innovateur. est, est-ce, est... est-ce que ce discours ne <laughs> non, au contraire après les dégâts. non comme tu as dit au départ ça il faut s'unir ou périr oui mais bah, tu péris pour, pourquoi mais parce que c'est le capital le capital il n'a pas d'état d'âme non ou bien vous êtes capable de défendre vos intérêts vous survivez bah, vous n'êtes pas capable on va vous disperser et le capital il connaît la faille la faille c'est quoi c'est l'intérêt crypto-personnel oui. tu deviens adjoint dans un mouvement syndical ñu woo jox la xaalis nga créer sa mouvement bopp di wéy ci waaw bon c'est c'est des stratégies. mais mais aussi c'est pas c'est pas euh, par exemple c'est pas nouveau hein parce que bon. Euh, bon lui connaît mieux que moi ça à l'époque du du grand capital euh, fort et puissant tu avais des syndicats jaunes les syndicats jaunes c'est des syndicats qui ne défendent pas les intérêts des travailleurs qui défendent l'intérêt de l'entreprise donc les syndicats jaunes aujourd'hui existent au Sénégal ya a y a des syndicalistes qui occupent des fonctions qui sont bien payés qui sont bien nourris mais qui ne défendent pas les travailleurs ils défendent leur euh, prestige ils défendent leur salaire ils défendent c'est ça la puissance de la mondialisation c'est-à-dire que la mondialisation est arrivée à intégrer l'intellectuel dans le capital ni ngay investir sa xaalis pour mu marché tu l'investis pour acheter des syndicalistes pour acheter des intellectuels mais ces intellectuels et ces syndicalistes qui sont au service du capital. Pour créer, ils... pour créer des partis politiques qui te seront favorables. C'est comme ça que fonctionne le capital. Le capital, euh, il est assez intelligent. syndicats yi ak parti yi instant yi ñooy rivaliser Sénégal boo nee am nañ 300 partis politiques syndicats yi bu ñu matul 300 na ma jaaxal. waaw xam nga. après ñu xool la une des journaux dellu soir. waaw waaw d' accord syndicat yi effectivement am nañu ñaari fléau lañu am muy dispersion bi doyen wax ak désunion entité yi ma waxoon sànq élite intellectuelle ak mouvement ouvrier ñaari fléau yooyu la mouvement syndical am ci jamono bu nga xam ne dañ nekk ci quatrième révolution industrielle buy menacer le mouvement revendicatif premier pléau bu njëkk bi nangu nga li ma wax mooy. oui oui dispersion des forces syndicales dispersion bi lu ko indi l'égoïsme. lépp a ngi ci biir. Hmm? l'égoïsme lépp a ngi ci biir waaye du tere ba tey syndicaliste fa mu nekkoon mu nga fa. ah oui. xam nga olof dafay wax mën a mën a du moom jox nañ ma poste directeur ma bañ ndax syndicat jox nañ ma poste député ma ma décliné joxe ko. ak yeneen ak yeneen waaye du ma ci sori ndax olof dafay wax ne mën a mën a du boobu kenn mënul jël exemple ci ci yow mais syndicalistes yi. fañ nekk leen dugal leen conseil économique social. fa mais conseil économique et social. foofu nag mooy suñu place après ah, euh, euh, euh, mooy suñu place. assemblée du suñu place par le biais d'un parti assemblée du suñu place conseil économique et social mooy suñu place xam nga conseil économique et social ñan ñoo fa war a nekk. les socioprofessionnels, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, les syndicats des patronats, les syndicats des travailleurs, l'ordre des, eh, des juristes, ainsi de suite. Nous avons pour que nous une expertise du tectal État dans l'élaboration des politiques publiques. L'association des cultivateurs, l'association des oui. éleveurs. Moi, moi, moi, moi, les socioprofessionnels, nous avons une place, nous, nous, syndicats. Au conseil dialogue au conseil du dialogue social structure la bu nga xam ne day gérer dialogue social c'est tripartite comme le foofu aussi suñu place la donc dama bëgg a wax ne gis nga mouvement syndical mi ngi ci situation bu difficile loolu nangu nañ ko mi ngi ci crise nangu nañ ko waaye ñu ngi ñu ngi takk suñu digg parce que duñu baisser les bras te dinañ régler le problème parce que crise yu mel nii c'est pas la première fois buy dal ci mouvement syndical tey bi ñu defee élection parce que dispersion bi dafa bari kenn xamul kan mooy kan ñu réclamer élection def nañu élection de représentativité léegi cinq centrales ñoo génn def nañ ko defaat ko euh, mooy troisième fois bu ñaar yu njëkk yi quatre centrale moo génn troisième fois bi cinq centrale mooy génn sur vingt et quelques or euh, vingt centrales syndicales loolu mooy wane ne élection yi am na solo parce que liggéeykat yi ñoo tànn ñi leen di waxal ñooñu ñooy nekk interlocuteur. mais bii yoon da a régressé waa CNTS FC. da ngeen a régressé non suivre yow de suivre yu bëri. damay laaj <laughs> waaw d'accord suivre naa parce que CNTSFC le jour même j'ai invité des li nga def kay rafetlu naa ko laaj bi nga laaj. waaw gis nga CNTSFC mooy c'est la seule centrale bu nga xam ne élection 2011 ak 2017 dafa progressé ñeneen ñi régressé. Hmm. élection 2000 2017 ak 2023 dafa progressé en rang et en pourcentage de représentativité donc ñun boo jàngatee. boo jàngatee résultat yi CNTS FC mooy courant syndical ascendante. Hmm. ñeneen ñëpp dañuy wàcc. yéen a ngi sauf sauf pour cette fois si euh, euh, la FGTSB bu bu bu bu amoon 9 tey mu am 10 pour cent euh, ma débat euh, l'URSSAF aussi il faut le reconnaître entre les deux élections passées il avait régressé mais bii yéegaat na mais ñun ñoo ci am euh, progression constante depuis 2010 ba léegi. kon cela va sans dire kii régressé kon xam nañ ko. xam nañ ko kay. ah doyen waxu ko mais kon xam nañ ko ah, parce que waaw waaw xam nañ ko mais euh, soxlawul parce que euh, ñun syndicat duñ duutante barom man du ma duut barom kenn mais dama lay expliquer parce que yaa posé question bi nous sommes le seul courant syndical ascendant de façon régulière et de façon progressive CNTS FC régulier donc ñun li ñu nekk dañ ci war a gën a taxaw moo tax ba jafe-jafe CNTS FC hmm? laataa Wade di jóge ci nguur gi kase waat na ko en deux CNTS FC avant Wade di jóge ci nguur gi kasewaat na ko en deux. xam nga am na beneen bu judduwaat aussi yéen seen plan. xam nga boobu aussi wàññiwul dara seen doole. Eh, ñooñu ñooy wàññeeku ñun ñuy progresser du ñooñu rek. gis nga am nañ crise de co de am nañ crise de croissance CNTS/FC am na crise de croissance mën naa wax ni ñetti central jóge nañ ci. waaye terew ci FC wala CNTS. ci FC. ñetti central jóge nañ ci. oui oui am na centralu FC authentique am na centrale yu eh, UDT eh, eh, kii UDT bu Ibrahima Sarr am na centrale lu Doudou Cissé ñoom ñëpp ci ñun lañ nekkoon mais liñ ci jàngate mooy ba ñu demee ku dem da ngay wàññeeku waaye yokku woo ñun ñu yokku yow mi yow mi ñuy jógee ci yow it di dem ma ngi yokku est non est-ce que yaa ngi xool dem yooyu noo ko mën a bañ noo ko mën a éviter dem yooyu mënul ñàkk ah, ah oui ah crise de croissance organisation de masse bu nekk ab dox waaye lan mooy lan mooy atte bi lan mooy atte bi mooy li ma la wax nii élection bu jot ngay yokk ñi jóge ci yow di wàññeeku loolu mooy atte bi loolu mooy liggéeykat yi tax ngeen di wax yow la ñu gën a wóolu loolu rek lay tekki bi ci des mooy euh, fa lay daanele ndax da nga mel ni ku yàkkamti waaw gis nga seen centrale yooyu nga xam ne ñoo représentatif dañu am aussi link sur le mouvement international bien sûr ñu takk suñu digg di fexe ba mu am un nouveau contrat social face à la quatrième révolution industrielle bu sa kii passé ñu dellu si parce que loolu lu am solo la. d'accord d'accord doyen. laaj ko ben laaj après ma ñëw ci revue bi. non c'est par rapport à la la le li muy wax nii les divisions au niveau des syndicats ban démarche euh, ban démarche quelle démarche pour l'unité de, de du mouvement syndical euh, parce que. la première démarche mooy se départir des parti politiques c'est la première démarche pourquoi parce que man euh, du ma wax ci yeneen centrale yi mais ci suñ centrale man dama amoon engagement politique bu ñëpp xam depuis le RND je membre fondateur du RND de Cheikh Anta Diop membre fondateur du PNP de Babacar Niang membre fondateur de la CDS après ñu dem PDS loolu militantisme boobu lenn rek moo taxoon CDS c'est la convention des démocrates man ak Abdou Fall ñoo ko créé woon. Ah. ak d'autres camarades. d'accord après ngeen dem après ñu dem PDS lan militantisme politique boobu ban dafa amoon explication ci man. Mhm. mooy il faut que le Sénégal connaisse une alternance démocratique. c'était mon objectif politique. En, avant 2000. mais oui. avant 2000 waaw. après 2000 laa bàyyi politique. après 2000 laa bàyyi politique bi alternance amee ñuy dem di dem ba waa PDS jàpp ne. seen centrale la man seen CNTS/FC mooy seen central ci laa bàyyee politique pour won leen ne du suñu centrale parce que dañ cee dugg ba may bàyyi ci la ñu dugg nag xaaj ko ñi nga xam ne jàpp nañ ne ñooñu ñoo leen gën a proche ñu xar ko. alors la loolu indi sa bàyyi kon ci PDS. mais loolu indi sama bàyyi xam nga fan la King Fahd Palace la dañ doon def bureau politique sama xarit Souleymane j'avoue que nag il m'a beaucoup défendu Souleymane Ndéné mmh. mais comme il présidait le bureau politique. Euh, ordre du jour bi lañ koy jox ba mu jëlee parole ne. ban année la loolu. est-ce que du mille voilà 2016 2015 oui. ou 2016. quelque oui, chose comme ça ci fin wàdd yi la. ci fin wàdd yi la waaw. Mhm. ba mu jëlee euh, lire ordre du bi ne dinañ jox parole les syndicats affiliés au PDS en l'occurrence Bakhaw Ndiongue Diouf ba waaw oui loolu la wax. te boobu yaa nekkoon. mais nag terewul <laughs> j'avoue que nag quand même il m'a beaucoup mais boobu yaa jiite woon syndicat boobu la scission bi commencé mais xam nga parti politique loolu moo tax ma ne syndicat yi dañu war a bàyyi parti parce que parti politique boo ci nekkee nekk euh, bokk syndicat nekk forte tête dinañ ut kuñ la kuñ la remplacer ku nga xam ne manipulable loolu la woon gis nga ba mu waxee loolu. Mhm. ci la génn publiquement ci réunion bi oote conférence de presse à côté. pour dire que Cheikh Diop ne dirigera jamais une organisation syndicale affiliée à un parti parce que j'ai eu à, le combattre, à combattre ce système à, euh, à l'époque. Nous sommes libres, indépendants. Le, la centrale est un cadre de lutte, d'action et de réflexion au service des travailleurs. J'ai abandonné, non seulement j'ai quitté le, le PDS, mais j'ai arrêté de faire de la politique. Je me consacre entièrement au mouvement syndical. Depuis lors, kenn dégguma ci benn parti. Mais bon, déjà votre mise à mort, ah. ma ne boobu pare woon nañu déjà. pour guillotiner la waaye nag liggéeykat yi ñu fal ñoom xam nañ kan moo yor seen njëriñ wala kan moo ko yorul depuis lors kenn déggatuma ci parti et je me fais un principe tant que maa ngi diriger CNTS FC du ma militer ci parti politique mais citoyens yi nag am nañ droit militer ah, fu leen neex même bu ñu dee syndicaliste mais man je me fais ce ce principe je ne militerai dans aucun parti politique tant que je dirige la SADES. Donc, est-ce qu'il a répondu à votre question ah oui c'est euh, c'est très pertinent la jur euh, par exemple dans tous les syndicats autonomes là particulièrement dans l'enseignement supérieur soo nekkee secrétaire général par exemple SAES mënoo bokk ci bureau politique d'un parti politique. oui tous les mouvements autonomes s'inscrivent dans l'autonomisation des syndicats. Mmh. je pense que ça c'est une très bonne euh, initiative séparer le syndicat du parti politique wala séparer le syndicat du pouvoir de dina wàññi manipulation mais dina renforcer aussi le le l'esprit euh, l'esprit syndical. mais est-ce que ñoom defuñu ko pour mën a jot ay financement non au contraire. pas de l'État mais du du régime qui leur est favorable. non le financement par exemple c'est l'État qui décide. comme ni mu ko waxee ça on organise les élections suivant l'ordre d'arrivée il y a un financement qui va être fait en fonction de la représentativité des uns et des autres donc là c'est transparent il y a hmm. pas il y a pas de manipulation possible la manipulation c'est <clears throat> c'est quand hmm. par exemple les dirigeants comme le meilleur système c'est la CNTS de Madia Samba Dia c'était un homme politique c'était le chef du, du, de la CNTS il avait son quota à l'Assemblée mais tu peux pas être un syndicat affilié à un pouvoir nga ne tu vas combattre ce pouvoir là c'est pas c'est pas cohérent d'accord je crois que l'autonomie ça c'est une très très bonne chose pour les pour les syndicats mm. mais là où peut-être Cheikh n'a pas insisté c'est c'est par rapport à notre partenaire D'ailleurs, par exemple, on dit souvent les, les, les sociétés chinoises ne respectent pas les contrats. Bon, les Indiens, pareil. Hmm. Les, euh, les, Par rapport aux... dans, dans, le monde du travail, oui. beaucoup de travailleurs se plaignent du fait que, par exemple, la, la route euh, Touba, euh, il a Touba, il y a des contrats qui n'ont pas été respectés. Les travailleurs sénégalais n'ont même pas de contrat de, de travail. Donc, les multinationales qui viennent au Sénégal quelle, quelle est l'approche Comment faire de sorte qu'ils respectent notre législation du, du, du travail oui. merci beaucoup jërëjëf xam nga euh, li mu wax ci financement parti yi effectivement dëgg la may ma tuuti ma. leeral mais financement yi fan ngeen koy dugal dégg naa ay. 500 millions financement déedéet déedéet xaaral ma expliquer. après 300 millions par année. <laughs> ma expliquer tuuti xam nga les organisations syndicales doyen a vu juste. non les organisations syndicales xaalis moom dafa xaw a sensible kenn bëggu mais am ngeen di dugal xaalis waaw expliquer fi ñu koy dugal les organisations syndicales la presse les partis politiques sont d'utilité publique oui dans tous les pays du monde dañ leen di defal subvention et c'est mieux parce que ça moo gën a transparent comme li mu wax on a une subvention de on avait un budget de 600 millions par an comme le Bénin parce qu'on avait pris l'exemple sur le Bénin à la de la revendication Wade def nañu nañ ko joxe exemple on a donné l'exemple du Bénin qui avait 600 millions par an a dit il donne 600 millions mais boobu élection amagul te 600 millions bu ñu ko joxee day gën a tas syndicat yi bu ku nekk amee sa cër ñu ne léegi central bi lañ koy jox central chaque central chaque centre déedéet oh, xaaral ma expliquer maa ngi ñëw léegi ñu ne léegi nañ def élection de représentativité seules les organisations représentatives et démocratiquement élues ñooy am subvention xam nga loolu dina tax ba tasaaroo bi wàññeeku. d'accord parce que su dee centrale bu nekk ñu jox la sa cër day day musibaam léegi nag bañ ko defee ñu ne léegi organisation bu nekk pour pourcentage bi nga am ci élection yi pour pourcentage boobu ngay am ci budget bi budget bi sax Macky Sall dafa waxoon ne nañ ko may mu def ko 300 million la moitié il va le la ne prochaine ba tey jii joxee ko ko donc 300 millions yooyu la ñuy séddale les centrales représentatives chacun aura le le le taux de représentativité qu'il a dans le budget. noonu lañ koy séddalee xam nga loolu c'est c'est c'est transparent c'est démocratique li ci des mooy quand tu as la subvention de l'État le l'IGE a le droit de venir auditer où c'est où sont passés les les 10 20 30 40 millions 50 millions ou 100 millions qu'on t'a donné dans la subvention parce que nous sommes d'utilité publique on doit former nos militants on doit payer nos salaires on doit payer notre location ainsi de suite ainsi de suite loolu yëpp dañ ko war a justifier du xaalis bu nga xam ne dañ koy jël def si suñu poste dafa war a faire fonctionner les organisations syndicales moo ñuy jàppale aussi ci élection de représentativité yi bu jotee pour que léegi loolu au moins di def travailleurs dañuy cotiser travailleurs dañuy cotiser waaw travailler loolu loolu texte la loolu texte la bu ma la joxee exemple CNTS FC am na lu war a toll ci quarante organisation initiales 8 ñoo ciy cotiser du ñëpp ñaata seen membre yi ñaata la à peu suñu membre yi eh, suñu membre yi wax dëgg yàlla tey jii boo ko seetloo ñun CNTS FC évolution bi nag pour nga joxe chiffre bu exact dina dina dina xaw a jax mais dañ leen di couper à la source les cotisations sont coupées à la source les les cotisations. cotiser nga mun a évaluer moom laa lay wax ni. mais man moom ci source bi lañ koy tirer. cotisation yi xam nga y un taxe réglementaire. oui qui dit que travailleur bu syndiqué. 40 pour cent yi day dem ci centrale bi nga bokk 60 pour cent yi dem ci syndicat de base bi nga bokk. c'est cotisation. comprendre nga muy cent pour cent léegi nag syndicat du pétrole bi ma bokk par exemple day am 60 pour cent centrale bi syndicat du pétrole bokk am quarante pour cent boo xoolee ñun synthèse FC huit syn huit syndicats de base rek ñooy cotiser sur les 40 pour vous dire que cotisation yooyu ñuy wax ñu bëri diñ ko reverser. on a des problèmes hein sérieux <laughs> am na syndicat yu nga xam ne dañuy jot seen i seen i seen i cekof garde ko cent pour cent or warul demee noonu ñu tëtalee subvention la bi bi ñu kii kon seen syndicat yi duñ duñ fonctionner de duñu dox mhm. dafa dafa c'est un peu difficile mais nag li jaadu woon mooy effectivement qu'on respecte les, les textes réglementaires syndicat bu nekk reverser say say cekof dem nañ sax ba am ci souplesse ne ku mënul verser 40 pour cent nga verser li nga mën mais ku bokk ci dara nga joxe donc voilà un peu la situation que nous vivons qui n'est pas du tout très très simple. d'accord euh, ñu xool la revue de la une wax ci tuuti actualité euh, gën nañ ko xool doyen. donc euh, bu fekkee jàppandi na waa Régie ñu xool la une des journaux de ce vendredi euh, dès le soir. donc ñu euh, commencer par journal LAS la ferveur. QVS délesté de 90 hectares. Donc, euh, la ferme QVS, scandale foncier à Kermousse, bataille la ferme QVS délestée de 90 hectares, hmm? plus de 1000 emplois menacés. Euh, les dessous de l'acharnement contre la IBD, rachat de 51% des actions détenues par LAS, et euh, des imams réclament leur sukkaru koor doyen sukkaru koor bi cher te te man ko dégg dama tiit sax non rupture les imams nee nañ daal cinquante mille francs lañ daan jot léegi sax dañ ko bëgg a def cent mille yow jote ko cinquante ngay laaj cent mille Moustapha Ba vante les mérites du PSE le quotidien ok le quotidien le quotidien fu mu ñëw euh, les nouveaux termes de change ñu ngi gis euh, passation de service yi doyen gars yi fast track lañ ko def démb de li ñu def ci ay passation matul 10 ministères fast track sans tambour ni trompette yëfi daal dafa mel ni ñenn ñi tamit dañoo yàkkamtee sax delloo lengee waaye ñeneen tamit yàkkamte nañoo récupérer lengee bu ko defee ah, ku nekk xam fa ngay taxaw et on avance donc euh, mu ngoog les nouveaux termes de euh, le soleil le soleil moom maa ngi moom nii l'invite du président aux agents de l'État doyen fii tamit foog ñu def ci fii la ñuy njëkk commentaire cette invite là lettre bi do bi euh, président Bassirou Diomaye Faye yónnee Euh, jox ko les les agents de l'administration ah di leen ci xamal daal euh, triptyque bi ah mooy les trois J jubal jubbanti ak ban sax doyen jàpp nga ko de. jubal jubbanti. ah. jub jubal jubal jubal jubanti jubbanti. droiture probité et exemplarité. d'accord hmm. kon yónnee na leen ab bataaxal. mu nekk rek lettre du mat na daanaka deux pages di leen xamal ni daal yëf dañ koo war a soppi te ñoom ñiy liggéeykat yi daal ñoo war a soppi yëf yi teg ko ci dëgg teg ko ci njub waaw te ku gis ku naka sudul noonu it bul ko bul noppi waale le témoin donc euh, le témoin xam nga xam nga lettre bi li ci xaw a doy waar yow bu fekkee administration nga nekk ba nekk président di wax ak sa naataangoo yi nekk administration donc maanaam on se sait c'est nous dans nous xamante nañu donc euh, li ma bëgg xam ngeen ko te parce que yéen laa bokkoon le témoin donc euh, le témoin lu mu wax ba Bassirou Diomaye Faye exhorte à la droiture la probité moom lañ moom moom moom lañ doon wax léegi

nee na dañu leen encensé le président a encensé les les les les l' administration les travailleurs de l' administration man gisuma encensé au contraire da leen a ñaax. da leen ñaax xam nga encensé daanaka mooy jay nit ki. waaw donc leen ñaax. waaw da leen a ñaax hmm? donc da leen gën a gën a ñaax ci liggéey bi donc euh, libération Diomaye fixe le cap ba tey c' est mu nekk même même thème bi rek la pratiquement. Euh, l'appel de Bassirou Diomaye fay au fonctionnaires ba tey génn ñu ci thème bi ñu xool beneen daanaka euh, l'observateur les signaux d'alerte ban signaux d'alerte la l'Obs di wax ah, ah, ah, les signaux d'alerte l'observateur euh, anam waay diagnostic des voies cassées de Idi Idi aussi wax nañ ci moom parce que euh, porte-parole u bi daanaka chaque fois porte-parole yi dañuy démissionner moo tax ñu wax ci loolu mais bëggoon naa waaw l'observateur mu ngi nii les signaux d'alerte ça parle de quoi situation financière difficile un doyen caafa ngi bëgg a xam de nee nañ kees gi xaalis amu ci de les une façon de préparer l'opinion au réel politique ils auront besoin d'un temps de grâce pour faire les audits et des projections dans les différents secteurs les éclairages de Moustapha Ba à Cheikh Diba sur les finances publiques donc euh, Diomaye euh, Sonko des bêtes de scène Korité image virale du président et du PM l'histoire d'un sex friend qui vit au chantage Cissé et le problème des ailes coupées un Crépin suspendu Jacob blessé incursion au sein du mouvement Al-Fatah ok l'info journal l'info l'appel de Bassirou Diomaye au fonctionnaires wax nañ ko léegi lettre bi sinon wax nañ ci ak lan bu dee sport mooy li ñu wax léegi ñu ngi wax ci Cissé Crépin suspendu Jacob blessé le si c'est le problème des ailes coupées Rewmi Quotidien à la puissance Bassirou commande une transparence à la puissance 3 ok c'est retraite dorée voilà journal bi li tax sax tey mu jënd ko doyen président président de la république Sénégal neex na de da ngay dem retraite di fayeku 5 millions am chauffeur am personnel ñun ñi lay toggal ak jànk yi ci kër geeg yépp nguur moo koy moo ko yor sa oto essence même bitim réew ñoo lay jox ñi lay ñi lay ñi lay gérer nguur di ko fay fi nga dëkk sax nguur gi bu dee moom moo ko mooy fay location bi mais nekk président de la république neex na conseil économique et social boo fa jógee foofu tamit retraite 3 millions de francs par mois mais doyen xanaa ku nekk président de la république war nga mën a am kër goo dëkk nag quand même 5 millions retraite ah bon espérons bu ñu président bi bu jógee ci bopp réew man moom sama sama sama retraite baal naa leen ko ndax 5 millions ci président ak privilège yi nga am yëpp tamit macha allah macha allah macha boo ko waxee ñu ne da nga soxor mais macha allah daal le tout nouveau ministre des finances prévient les sénégalais nous allons vers des moments très difficiles kon faw ñu serrer la ceinture ok on verra mën na am yàlla duñ ci yàlla dinañ ñu ko dinañu musal ci loolu l' appel du pied de Karim au président Bassirou Diomaye Faye ok c'est bo bon Diomaye fixe un code de conduite un code de conduite aux agents de l'administration mooy lettre bi ñu wax sànq mais AIBD bi moom xam naa maa ngi ciy xaar libération mu dafa ñu ci enquête foofu tamit yaa bon le torchon brûlant affaire yi moom vraiment am na am na situation yi doy waar yu fay xew mook dakaar naaw AIBD Dakar naaw moom foog ñu defal ñu ci enquête bu xóot a donc je pense que c'est bon pour la une si c'est bon ñu dellu si waat waa Régis Walfadjri cadeau empoisonné de Macky à Diomaye service de la dette hmm? donc bàyyi nañ fi dette ay dettu milliards et milliers de milliards Sonko recrute Serigne Mboup bon le PM qui a rencontré Serigne Mboup opérateur économique donc euh, moom it nekkoon candidat à l'élection candidat malheureux donc euh, se sont rencontrés donc secteur privé bi peut-être certainement ay consultation la wala ay concertation donc mu ngoog baax na jërë ngeen jëf gërëm nañ leen fant nañ leen waa régie donc euh, mais bi ma nee doyen bi ma waxee ci waxu <laughs> retraite retraite doore yi mais président Cheikh Diop xool bi ma xool bi ma xool rek <laughs> non xool boobu moom bu doon jaar si instant yi dagal sama bopp bi retraite doore bi bàyyi ma wax la bàyyi la nga commentaire parce que xool bi ma xool moo am nga loo bëgg a wax pension loyer véhicule sécurité personnel mise à la disposition des ex chefs d'État man euh, xaw ma woon ñaata la ñuy am xaw ma woon la ci koppar bokk rek charge yi ak yeneen yi jàpp naa ne téléphone yeeg yëpp état moo la koy fayal. Euh, jàpp naa ne ñi jiite woon ba dem quand mi war na préserver cette dignité à tout point de vue c'est mon war nañ préserver seen dignité à tout point de vue et seen dignité boobu ñuy préserver mooy suñu dignité am na ci ñoom ñu nga xam ne bu ñu jógee président de la république am na yu bari mënatuñ ko def am na yu bëri mënatuñ ko def. Ah, ça c'est sûr ku nekkatul président kay waaw waaw dama ku fa jógee xam nga mënatoo def dara. dans la logique quoi ci liggéey maanaam liggéey. waaw ah bu dee am nga liggéey nag. waaw waaw waaw damay expliquer rek man ni ma gisee man dama jàpp ne ku mel ni Ablaye Wade lu mënati def. ku mel ni Abdou Diouf. ku mel ni Abdou Diouf lu mënati def non euh, am na fonction yu nga xam ne dootoo ko mën dootoo ko mën te boo demee ba jóge parce que démocratie dafa am lu mu laaj ñun ñoo wax ne deux mandats deux mandats yooyu bu Abdou juuf yoree benn post par exemple jóge fii kenn remplacé ko mu ñëw poste international boobu ki ko remplacé mënatu ko jël tànk Abdou Diouf nga fa soit Abdou Diouf day quitté moom mu jël ko Abdou Diouf bu quitté lu muy def donc dama bëgg a wax rek ne ñi ñu jiite doomu réew mi nga xam ne dañ ñoo jiite ba jóge fi te ñu fixé leen deux mandats ñu nangu ko muy démocratie nañ de bàyyi système démocratique bi mu fonctionné jàpp naa ñooñu dañ war a préserver seen dignité xëy na li nga wax nii yéen nag am na lu ñu ci mën a xoolaat waaye li ma d'accord daal mooy dañu war a préserver seen dignité ñu nekk ay ay des des des Sénégalais dignes pour avoir occupé la plus haute fonction de notre pays man loolu. loolu yaa ko laaj de kenn fekk la sa kaw la ni la kaay jiite ni yaa ni mën naa ko jox leen. ma ko d'accord mais ñi laaj te joxuñu leen bari na. waaw mais ñu jox la ba pare. wëlbatiku ak li nga ci am avantage waaw kon yow da nga jàpp ne ñooñu dañ leen war a. dañ leen war a jàpp sànni non ban sànni. conseil ah. économique social ñu fal ma. te waxuma conseil économique social non benn benn la bii 3 millions bii 5 millions la. du benn man jàpp ma ne benn la et puis il faut que ñu xool. ñu évaluer lan nga liggéeyal sa réew tamit. dama jàpp ne ñi nekkoon président de la république ba jóge fii. la nation doit préserver leur dignité man loolu laa jàpp loolu laa jàpp ñi jiite woon réew mi am na nag <laughs> kii yu nga xam ne liberté yi ak droit syndicaux yi ñu ba fi ak économie pétrolière abordé ko ko de wala duñ ko ñu ñëw ci bu bàyyi doyen. waaw d' accord d' accord d' accord merci. non pour man non pour man au contraire hein, millions ça ne règle pas le problème d'un ancien d'un ancien président cest dire que fonction bi. euh, tu au service de la République normalement euh, état bi moo lay jël bu dee un mandat deux mandats. xaaral ma lire message bi ne xoolal euh, kii internet bi nee nañ ma. invité nga ku pertinent je te jure loolu la benn invité nga ku pertinent. kan benn internet mais xanaa daa bokk CNTS FC. mën naa am ah, njóobu joon dafa far dafa far dafa far parce que bu nee ma invité nga ku pertinent <laughs> dafa far dafa far mais pertinent bi loolu moom moo ko jugé <laughs> dafa far am na ñu naan invité nga ku bëri wax wala invité nga waaw ku bëri wax waaw liggéeyu lu ñu dara <laughs> doyen non je disais que salaire euh, ancien président war na ëpp lool parce que euh, soo génnee ci nguur gi euh, le président de la république il travaille il a un secrétariat ah am na secrétariat gi nga xam ne daf koy liggéeyal par pour faire les mémoires d'un président de la République euh, le président a besoin d'un staff de de, de conseiller restauration am déplacement déplacement bon c'est des charges le, le président de la République c'est pas